mbokk internet yi ñu ngi leen di siwaar bu baax di leen wax ngeen dal jàmm Sud Sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaanal rek nga abonné nga activer cloche bi bu la nga di fàtte di like e, vraiment c'est très important suñu gaynde yi ndaw yi nga xam ne amaguñ fukki at ak juróom ñoom lañuy tàmbalee xibaar bi ndax kat ñoom kat jël nañ raay bu njëkk ci atum 2024 bi atum 2024 bi compliqué na pour Sénégal ci wàllum sport en général ñooy mujjee daan waa Guinée ca teg dóor ya ginnaaw gi kat bu ñu témbowee ñaari bal ci ñaar kon loolee rek dafay soxal li nga xam mooy champion d'Afrique de football scolaire de la zone IFOA a foofee ca Mauritanie lañ ko doon amalee kon suñ gënee gàddu nañu raay bi ek kon ñi ngi xaar suñ gënee jigéen ñi nga xam ne aussi war nañ jógante ci altine bi la nga xam ne mooy seen final face au Gambien. quinzième journée bu Ligue 1 bi doon nañ seen ay jowante ci noonu mooy daan jàmbaar ñetti bal ci benn. US Gorée Général Sofot 1 bi partout AS Pikine Linguère 0 bi partout Stade Mbour ak Jamono dañuy temboo ñaari bal ci ñaar Casa Sport dafay mujj lajj nag ca dëkkam Guédiawaye moo ko daan benn bal ci dara kon ca classement bi ñu ngi fas yéene Tëngéej kat mooy leader avec 28 points deuxième bi di Jaraaf avec 25 points ci suuf am na Jàmbaar ak Jamono de Fatick. ñu àddu ci Liverpool ak waa Égypte bi nga xam ne voilà na ñu ngi ci benn xëccoo ñu ngi fësal nekkat kii nga xam mooy Mo a dafa may gaañu gaañu kon club bu Jurgen club boobee dafay sàkkukat ci waa Égypte kat ñu noppal seen joueur boobee ndax dañu am yaakaar ci moom kon contre Man City waa Égypte kat ne leen déet duñ ko déggee noonu ne faw Mo Salah kat ñëw constaté la nga xam ne mooy blessure am boobee bu ko defee kat ñu am lu leen wóor ci gaañu gaañu boobee. militaire l'équipe nationale gabonais benn muy uyoo ci Gaylor Kanga Kaku moom kat dina jàmmarloo ak commission disciplinaire bu CAF moom kat dina indi ay leeral ndax moom li mu déclaré mooy que moom mi ngi judd 1990 alors que moom kat ka nga xam ne mooy waajurum ba jigéen ma ngay génn àdduna en 1986 xam nga ne loolee balaa yenewul maanaam derbi bi foofee ci Angleterre Man City contre Manchester United ginnaaw gi Rashford ba mu lakkee caax ya bii bu rëy rëy jàpp leen bu baax nag dañ leen a mujj remontada Phil Foden moo fa jaar mu amal doublé kon jàppale doomu anglais boobee nag mi ngi def saison bu mucc ayib ci 27 match yi jonte amal na 11 bi jot na joxe 7 passes décisives ki nga mooy Hiling ngalankat mooy dugal ñetteelu bi bi naam kat raté na benn occasion bu rëy bi nga xam ne ñu bëri kat. ñu koy waxtaane ci première mi-temps ba kon ñi ngi fësal ne kat Rodri moom mel mooy doomu espagnol boobee bi mooy 59e matcham de suite sans pour autant que mu am defet ak clubam boobee di Man City foofee ci Premier League kon record boobee kat moom moo ko fa njëkk amal en Angleterre. ek ci jëwante boobee kat Manchester United war nañ sant bu baax a baax kii nga mooy Onana bi nga ne vraiment réalisé na ay arrêt yu mucc ayib. ku seen di wéyle yoonam mu daan club bi nga xam ne moom mooy Cologne ñaari bal ci dara kon loolee dina leen may ñu rawee di poñkat club bi mooy Bayern waaye ndaw bi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax na am na Grimaldo waaye ki ngeen mooy Frimpong doomu néerlandais boobee ginnaaw gi ba mu ouvrir score bi kat jàpp leen. bi mooy dixième bi yoom ek amal na dix passes décisives kon club bu Xabi Alonso boobee seen attaque dafay lakke ndax quatre-vingt-dix-neuf but lañ jot a dugal ci 34 match yi jot nañ ko joonte ci saison bi. ñu utali ci Italie club bi nga xam ne aussi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax muy Bologne mu daan Atalanta ñaari bal ci benn ek bu ñu nee Bologne dinañ àddu ci en saison italien bi mooy Thiago Motta. kon këlëbam boobee léegi ñu ngi ci ñeenteelu toog bi ek am nañ 51 points ek 4 défaites dong lañ am depuis ndorteelu saison bi. Nampalys Mendy au top de sa forme comme ni mu ko tàmmee di ko def saay bu duggee ci terrain bi wane fulla ak fayda jom noonee la amalee fas au Lyonnais yi nga xam ñu ngi woon ci yoon bu mucc ayib jàppale nag club lance boobee kat ñooy daan. 3 buts à 0 kenn mooy Nampalys Mendy voilà Nampalys na sa place à la 73e minute ba ñuy pour rappel ñaari bal ci dara moom am na plus de 90 pour cent de passes réussies kon rien à dire FC Metz kon ñoom ko relancé wu nañ coéquipier yu Lamine Camara yooyu nag comme ni nga ko mooy que stoppé nañ ko la nga xam ne lañ naan hémorragie ndax jot nañ jongante fukki match ek voilà nag ñu am ci juróom ak ñeenti défaite kon ñooy mujjee daan nantkat ñaari bal ci dara ñëw nañu à trois points du barragiste bi nga ne moom mooy Montpellier et que ñu utali foofee ci Espagne xam ngeen ne Athletic Bilbao moo doon dalal club bi nga ne mooy Barcelone ñu mujj tembo zéro bi partout waaye nag li ñuul ci soo bi ak xibaar bi neexul dara kii nga xam ne moom mooy Frenkie de Jong ak Pedri ñoom dañoo amee gaañu gaañu bu fekkee néerlandais bi kat voilà dañ naan dafa amee entorse ci cheville droite bi. ek fukki minute lañ ci teg kii nga xam ne mooy Pedri mu amaat gaañu gaañu fam ko amee woon ci kiis duwaat ba ek ginnaaw gi jowante boobee ki yan mooy Xavi di seen coach su mi ngi fësal ci kàddoo mu nekkat gaañu gaañu boobee wala boog ñaari ndaw yooyu ke seen ay gaañu gaañu xaw naa garaaw kon buñ mayul kat dinañ toog ab diir laata ñu ñëwaat ci jowante bi kon ci classement bi ñu ngi fësal ne Real mooy leader avec points rawee 7 point Girona mooy ko am na 59 point Barça Real ya rawee na ko 8 point ndax amna na 58 point mi ngi ci ya ñetteelu toog bi et que ñu àdduwaat ci jowante bi nga xam ne na ci ati eh, Valence ak Real de Madrid mu amoon coow bu rëy at bi ba dafa tas match ba alors que kat ka nga xam ne mooy Brahim Diaz sa prêté à Bellingham ya kat kat eh, scandale bu mag la ci football club bi nag nee nañ dañuy rencontré comité technique des arbitres bu ko defee kat ñu indil leen kat euh, ay leeral et que sax buñ moyul wala boog ñu ngi sàkku kat ñu teg ay daan ka nga xam ne moo doon officier match bi di Gil Manzano et que kii nga xam ne moom mooy Mateo Lahoz mu ne vraiment mënul comprendre lan moo war a bi ba kat bañal leen bii boobee am na njàqare nag ca ka nga xam ne mooy Gil Manzano bu ñu xoolee kat expérience bi am na ko foofee ca Espagne. ndax fukki at ak benn mi ngi nii kat muy arbitre ci au niveau foofee ci liga esport ñu àddu ci kan mooy Mouta Diakhaby bi nga xam ne dafa amee gaañu gaañu bu garaaw comme niñ ko fësalee kon clubam boobee di Valence mu nekk doomu Guinéen boobee dafa amee liñ naan luxation ci zone droite bi kon buñ moylukat buñ soxandikoo ci Marca dina toog atum lëmbkat du mën a doxal foofee ci Angleterre ñu delluwaat fa Nottingham Forest xam ngeen ne dañeen dugal bi assassin dernière minute Nunez moo fa jaar waaye ka nga xam ne mooy seen président kat di Paul ne moom dafa toppoon arbitre bi ya nag ca adversaire kat mu yàq leen lu mel ne kette mais jàpp leen bu baax kat mu ne leen respecté leen li nga xam mooy joueur yi kon jox leen ceer kat joueur yi ndax kat ne niñ jàpp mooy kat temps ba jeexoon na takk laata Liverpool di mujjee la ko caax yam les Sénégalais de l'extérieur grosse performance de Pape Moussa moom mi nga xam ne mooy Pape Moussa Fall avant-centre sénégalais boobee ak clubam di Sereng jàpp leen foofee ci Ligue 2 Belge bi moom kat euh, dafa amal triplé ñu daan 3 bi à 0 kon club bu mbéy lay boobee voilà ñëw nañ à 3 points di di non relégable bi voilà ñu ñaanal leen bu baax et que nag sans oublier kii nga xam ne moom mooy. moom mooy Pape Mamadou Sy bi nga xam ne vraiment def na arrêt yu mucc ayib egg kon ci vingt-quatrième journée boobee kon ñu ñaanal leen kat ñu wéyale ci dynamique bi ñoom ñi nga nañ voilà ci treize derniers matchs yi huit défaites keneen ki nga xam ne wane na boppam muy mbay Niang moom miin mi ngi wéyle di lakk caax ya jàppale clubam boobee di àll xa di siya jàppale ñoo daan 3 bi à 0 ci noonee moom jot naa làkk caax yi waaye benn bi la amal jàppale nag bi mooy douzième bi moo amal trois passes décisives ci 22 matchs yi jonte en championnat cette saison. suñu gaynde biir mooy Alfred Gomis voilà ñu bëri dinañ poser la question fan la nekk ndax moom kat kenn gisatu ko mooy doxal naam mi ngi foofee ci FC Lorient waaye actuellement actuellement nag mi ngi moom mooy moom mooy troisième portier foofee ci Lorient et que mu nekkat objectif am bi nga ne moom la am mooy que voilà du changé ndax ci boppam jàpp na ne moom mooy gardien numéro 1 ndax mi ngi liggéey bu baax kat pour retrouver niveau bi nga xam moom lañ ko xamee ek nag mi ngi am yaakaar bis buñ ko tegee ci kaaykat mu wane lan nga xam la nga xam ne mooy ay qualité Bakary Sow u yow mu am fukki ak juróom-ñett moom kat dafa amal triplé ci U19 UFC Séville kookee ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax jàpp leen bu baax kat ci catégorie des jeunes yooyu kat l'attaquant sénégalais boobee voilà amal na 19 buts. Abdallah Simaguine nag ba mu amee gaañ gaañ mu toog lu mat ñetti weer yi nga xam ne doxalul jàpp leen foofee kan bi nga xam lañ ko lañ doon amalee foofee ca ko defal ak amee ka nga xam ne mooy coach sam nag mi ngi am yaakaar kat voilà ci semaine bii kat dina reprendre la nga xam ne kat mooy entraînement yi comme ni nga dafa bokk ci programme de rétablissement habituel yi waaye nag du laal la nga xam ne bal kon voilà nak la nga xam ne mooy course lay amal ñi ngi fësal ne voilà boobu ñi ngi fàttali la nga xam ne mooy statistique am depuis ndorteelu saison bi jot naa dugal 15 buts en toute compétition confondue. nattangoom benn mooy Nicolas Jackson mu ne dugal 11 bi nag ci depuis ndorteelu saison pour moom loolee doyul nag ndax mënoon dugal lu bay moom nangu na ne kat li muy raté ci occasion bu bëri na lool et que nag mu ne avec le temps dina def lu mu mën. bu ko defee kan mu indi ay ndimbal ci la nga xam ne mooy coéquipier am de PMK pour moom muy lakk ci ya moom nag mi ngi koy bamtuwaat ne raté na occasion yu bëri lool waaye mu ne nag ndoorteel bi la ndoorteel bi kon nañ am yaakaar kat moom dina fa wane boppam ndax mi ngi doog a door foofee ci Angleterre et que voilà nag dina continuer wéyale liggéey bi. ñu àddu ci kenn mooy Youssouf Dabo bi vraiment mi ngi def lu mucc ayib moom mi nga xam ne voilà ca championnat tunisien bi voilà lay lay wane la nga xam ne moom mooy expérience am. pour rappel ancien coach Tëngéej bi wala boog bu Jaraaf bi actuellement mi ngi foofee ci Azam football club et que mi ngi jiirante mbagg ak Zayan yi nga xam ne kat ñoo fay wane seen bopp muy Young Africa ak club bi nga xam ne mooy Simba jàpp leen kat ci championnat Tanzanie ñëwee boobee yi ngeen mooy Youssouf Dabo ak ki ndawam ñoo daan ñeenti bal ci benn et que ci noonee kat ñu ngi ci ñaareelu toog bi. comme ni nga waxee mooy que ñu ngi ci course bi pour jël la nga xam ne mooy euh, championnat kon ñu moom mi nga ay qualité am kenn du naamkat ñenn ñi ngi fësal après Aliou pour pourquoi pas moom naam ay jafe-jafe dox na ci mu ak fédération waaye di leer ba leer mooy que benn benn course la bi nga xam ne voilà dafay travail voilà sans bruit et que dafay wane ay résultats yu mucc ay wane na ko ca TFC laata muy utali foofee ca Tanzanie. kon gaa ñëmale foofee xibaar yi di leen jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.